Sëñ Balla kaay bi Mbaye am nañu kon soo ko jëlee am nga may tool le promoteur le jeune promoteur boo may tool jàmbaar mu ne yaa ngi bokkul na mën yaa ngi doy na waar mbir moom boo ko bokkee boo ko yokkul yaa sa waaj bu wàq kon jëli ndeysaan Sëñ Balla la bu ko defee rek damay toog ngoon ko ñu lay woo wani biyu ne wajen wawa kalli Thank you. bi ñu taxaw mooy Fils de Balla li ñuy wax rek mooy defe naa ne combat Fils de Balla Gora Sock ñu ko bëggoon béy na yaa ngi dégg bu ko demee jëm Gora Sock tamit Gora Sock doon combat boo xam ne nii yaa ngi dégg yaakaar naa ne képp kuy Sénégalais wala ngay amee teel lamb wala ngay dindi lamb di xam ne combat dëgg la demee jëm Gora Sock parce que nag ñoom ñaar tey suñuy maanaam mbir yu mag yi bu ñu wax rek la lamb ëllëg mën nañ ko xalaat Gora ndax la góor foog bii la ñu demoon tay jëm de combat bu métti te ba muy jóge fii mooy yóbbu ndam li waaye nag refuree ko dab xamal kon da ngaa daanu ñu nangu ko ba ba tey bëriwaatul deux mille dix neuf la woon ba ñuy deux mille vingt deux boo xoolee ay at la fi deux ans ñaari at la bu nga bàlla nag dafa jëloon combat boo xam ne bu ñu ko jëlee yëpp dañ noon ko wala boog yëpp dañ noon bay daanu ma général Malika foog nga tegoon mooy la général di wane ci ay performance général di mbër mi tànn mën a xeex mën a bëre wala ko dinañ am xalaat bi mais ñoom ci biir simple bi tamit dafa kontaan pour que Balla jël ko ñu ci seen xare waaye defe naa keroog ba ñu dajee bi ila naan ah, jóg ah keroog defe naa ne loxo dem na jënd dina dina ci ndax dégg nga pour que Balla daam ci nga xam ne nii man xanaa malik ko ñëpp dañ koy waxtaane man xale boo xam ne tamit defe naa ci biir waay tey boo ut yaakaaru biir waay ñu dina Balla bu fekkente ne continué ci lance bi mu nekk waaye ngeen nag buñ la naan yow la yow la lay tax nga doon yow la yaa koy def sa bopp maanaam yaay entraîné yaay bëgg heure bi yëpp di nelaw yaay bëgg maanaam nit ñi bëgg lu neex yow nga bàyyi ko ñëpp a carrière mooy tax nga nekk sportif de haut niveau ndax doom nañ ko fii ñu nekk bu jëmante tey am na lu bëri lu ñu bàyyi kon defe naa loolu la ñuy wax mbiru ndaw yëpp fi nga bàlla kaay sa adversaire ñoom ñëri jéera xam ñu ko téye waaye daal léegi la dégg nag ñun waaye xalaat naa dinaa la moom say sa doon sifflé wala Malick Ngom ñu bëri loolu moom du mën a ñàkk waa sax yàlla na ko yàlla na yër ba ñëw wala boog yàlla nañ ñuy ci jàmm boog waaw di ñaan ñëpp ñëpp euh, mbër ñu ngi lay jaar waaw moo leen fay sant bu baax di sant sama sëriñ sëriñ Moussa Nawel am na sama sëriñ xaalis sëriñ Abou di gërëm ñëpp ñu ngi sëriñ Moussa Nawel bi yëpp di gërëm tamit sama papa bu baax a baax ak sama yaay ak sama xarit yi ñu ànd ak yëpp sama gaa maa leen di sant bu baax a baax ah. maa ngi sant ñëpp bàyyiwuma kenn ah. bëggee sa di sant képp kuy bëggee si sa Balla rek waaye kon du Balla Gaye maa leen sant bu baax suñu écrit di sant Balla Gaye bu baax Lamine Golo mbës ñoom Youssou Ndour gaa yëpp parti président maa ngi koy sant bu baax a baax ah ah tey yaa ngi jëm ci combat boo xam ne combat bi jour bi muy jour bi ngeen di présenté Iba Mar ta sina kera am na fa sax def ngeen ko biir Iba Mar Diop kera mbaxana ñëw yaa jël mbaxanaam wala moo jël sa mbaxana pression boobu la àddunul pression premier jour bi la attanul ba léegi moo tax ñemewul jàkkaarloo man ba léegi. neex na de mais sëg ku bëre moo yombul. moo xam lu tax ñëwul signature ndax mënoo ñëw a fay xaalis jàmbur nga ñëw war a ñëw signature ñëwoo loolu neexul tamit promoteur bi dafa am sponsor dafa war a ñëw ñu tamit loolooy làmb ji waaw tamit kii rafetul góor da nga yaakaar daa xam ci yow lu tax mu war laa rak déggoo li ma la wax chaque jour maa ngi koy wax maa ngi koy ñaanal jàmm bu mu yàq làmb ji loolu laa koy wax chaque jour bu wax boobu lu tax nga di ko dox di wax ama kër ñoo ñoo ñëw école ma wax la ko may la Babacar góor bu mu yàq làmb ji bu mu yàq làmb ji na ñëw ñu bëree dañoo fay man nekk moo fi di xaaral pour déwén pour bëre waat xaw ma daa pare xaw ma parewul mais bu mu yàq làmb ji na ñëw taxaw bëre buy daanu mu daanu loolu laa ma koy wax waaw li nga loo dégg loolu bu bëriwul laa koy wax mais incha allah mun ma ko wax na xamagu ma wax day bëriwul ak bëriwul mais maa ngi toog di xaar. démb yéen ñaar a jàkkaarloo ci live Instagram bi ne ko di ko nëbbu ndax mën nga leeral blessure boobu noonu ci kanamu caméra yi. waaw mais dafa ko nëbbu moom dafa blessé di ko nëbbu na ñëw bëre bu mënut a bëre na wax ne bëriwuma moo gën ah ci moom la. la wax daa blessé man daal maa ngi toog sama ruq maa ngi préparé sama làmb maa ngi xaar ba suba dinaa ñëw. ànd ak sama nit ànd ak sama mbooloo dinaa ñëw ci làmb ji. mais bële si ko nëbb lu mu la wax nangu sax wax commentaire yi ñëpp ñu góor a tontu woo tontu sax kii na promoteur bi ma rek man daal man man daal maa ngi koy ñaanal jàmm laa koy ñaanal xaw lu ko dal xaw ma lu ko téye mais na nekk jàmm ba jour mu ñëw moom jàpp ko daan ko mu gën a sedd ci moom loolu laa mën a ko wax. aw ma leen lu ma koy wax man daal aw ma leen lu ma koy wan làmb ja rek làmb ja laa koy wan lu tax muy tàng chaque combat day am tension. bon dañoo nekk ay xale rek góor dañoo nekk ay naataango amateur yi xaar làmb ji ñëpp di ko xaar Sénégal àdduna ñëpp xaar làmb ji na bañ a yàq làmb ji rek laa koy ñaan waaw. mu doon tamit wax ne na góor na wax kese nga am ci combat moo tax mu bala ngay wax rek. man damay wax di jëf Babacar man lu mu wax dama ko def mu ma wax nit ko lu mu wax naa ko ku wér laaj bi ma bëreel ba pare. ah loolu waxu mbër la rek mu ko neexee mu wax ko. nee na waaw loolu de jaayee fa dem. waaw ah, mais moom déglu ma la wax mbayaar yaa ngi nii ci yi ana mbayaar mbayaar yaa ngi lu mu bëgg teg ko ñu teg ko. deux millions daa tuuti si moom bu buggee mu ni cinq dix sama pro baa ngi ne yaa lépp lu mu indi mu teg ko mu ngi ne toog yaa yaa ne lu mu indi mu teg ko yaa ci moom lay dépendre rek waaw mu ngi ñaan dama mu ñëw ci bis rek yaa koy ñaanal góor sa kala fi a dóor ko daal wala mu rëb tànk yi moom koy tànk déglu du ma daan de waaw waaye loolu waxu mbër la rek bu ko neexee wax loolu moom man su Balla ba doon teg du teg ci yow man su ma neexee taxaw ne Modou Lo du teg ci moom am na si droit kan moo ko soxla ku ñuy soxla ku ñuy jënd géejaay ku ay tànkam baax ndax mbër mooy tànk ñun ku ay tànkam baax la ñuy jënd ah. waaw dina jël lépp mën naa li ma koy ñaanal na ñëw ci bis bi rek dama yee yàq làmb loolu laay wax. am na ñu bari tamit dañu wax ne Fils de Balla mi ñu gis doon bëri général Malika ak Fils de bi ñu nii am na ab jafe-jafe ak changement bu ci am. ça veut dire jël poids bu bëri actuellement am na ñu ko wax da ay commentaire kata ko wax. waaw kat làmb ji foowewu ma ko damaa war a yéeg ci kaw te góor bi moo may téye damaa war a fekk samay mag ci kaw góor mënu ma téye sax mënu ko doole ji ma ànd ak góor mënu ko résister. fii métti fa koy tabax mu xam loolu fii métti laay bës am fii métti fii métti ci laa wax fa koy jaar fan mooy métti ma ko wax ba si buñ dugg biir jiw ba buñ koy daan mu xam ko voilà loolu léegi laa koy wax déggoo moom ñemewul din bu day toog ñu mu aara booy bool ñu mu ànd ñooy liggéey si dindi lay si taatu garab yi lay toog hmm. dindi mi ne fi ñu identité moo tax maa tax nangu du faa ñëw yaa tax mu bàyyi si non du fa ñëw